société nag comme daje yi mel ni bu amee il faut que ñu waxtaanee waxtaanu politique parce que tamit duñu ay conférencier islamique mais ay nitu politique lañu ku wax politique nag ne politique de développement politique sociale ci politique boobu la ñu nekk ñu jëm ci ay élection yi yi garaaw nag muy ay élection législative di ay élection député comme nu ma nee nee naa leen mun anaama Yeumbeul Sud sanctionné wuñu Macky Sall mais amaana Yeumbeul Sud tête de liste Macky Sall bi la ñu sanctionné muy le ministre amaana ñi nekkoon ci liste bi la Yeumbeul Sud sanctionné parce que ñun nag dañuy cautionné liste bi malgré bokkuñ ci liste bi mais dañoo dem ànd ak liste bi wu dem campagne liste bi parce que ñun gëmuñu ne budul ñun di doon keneen dañoo gëm ne ñun parti bi moo ñu fi teg teg ku parti bi teg ñu ànd ak moom def nañ suñu képp laay kattan jaay nañ suñu lal def nañ lu ne pour liste bi gagné malheureusement nit ñi wax nañu ne seen tête de bi duñ ko woteel ñeneen ñi wax nañu ne ñi ko wër ñëpp tamit ministre bi ku baax la ku am xam-xam intellectuel la ku bëgg lu muy def la mais malheureusement gars yi yëmbal si xamuñu ko beneen jàngat bi ñu ne ñëpp ñu ko wër ñu si bëri ñu ngi fii ak yëmbal si depuis fii lañ juddoo fii lañ yaroo mais bu ñu rombee nit ñi amuñu nit ñi coloré faalewuñ nit ñi weguñu nit ñi moo tax nit ñi téye seen i kat dem woteel ku leen neex loolu nag mu doon lu doy waar mu doon lu moo metti lool mu doon parce que tamit lépp lu metti président man daf may metti ndaxte benn leader la am politique moo tax nag ñu war a xool nan la ñu war a renverser la tendance au niveau euh, ci législative yi xool nan la ñuy perdoon parce que tamit ay junniy voix ay xob war nañu xool uti ko xool nan lañ koy remplacer am na ñoo xam ne ay vote sanction la ñu def ci la ñu di nekk ci terrain bi seeti nit ñi di wax ak ñoom ci suuf ba tey ñu xam lu métti di métti jafe-jafe nit ñi moo tax nag ñi ne département Kër Massar il faut ñu reconquérir ko parce que bu ngeen xoolee département Kër Massar commune yi fi nekk yëpp dañ koo ñàkk sauf commune de Malika nan lañ koy reconquérir ministre président Macky Sall def na fi ay réalisation yi am solo fal na fi ay ministres yi am doole parce que ministre de l'économie euh, euh, de la coopération fii la dëkk ci Yeumbeul ministre du commerce ci département bi la dëkk Kër Masar la dëkk ñaar ñooñu bu ñu demee élection population bi dañ leen ne bëgguñu leen dañ leen ne dóor ba ñu yegg ci suuf donc nag jàngat boobu mooy que c'est pas ce n'est plus e-, ministre égal patron du département wala ministre égal candidat tête de liste moo tax na ñun ay dañuy politique suñu taxawaay nag mooy suñu parti kenn sàndiwu ko parce que alliance pour la république lañ bokk te bu ñuy bokk alliance pour la république démb la woon 2009 la woon amaana ñi si bëri tey ñiy dégg ay ministre amaana ñi ngi woon seen soxla bopp ñi ngi woon seen liggéey bopp mënuñoo nekk nag ay gune accompagner nit ba def ko président de la république protéger ko en 2012 jox ko majorité à l' assemblée nationale en jox ko majorité à l' assemblée nationale en 2017 fal ko au en ñi ñëw ñu ne ñun ay gune lañ xamuñu dara ci politique. yaakaar naa loolu mooy suñu problème au niveau de l' pour la république dañoo dañoo dañoo xeeb lu ñu yor. parce que nag nangu nañ ñu uti renfort mais ñi fi nekkoon démb ak barki dem dañ leen war a jox seen cër di leen déglu di leen di leen wet pour que ñu mën a liggéey ne liggéey bi leneen bu ñëwee delloo ko si mais malheureusement <coughs> nit ñi bees ñi ñëw ñi dañoo ne ñi fi nekkoon duñu dara wala amuñu xam-xam amuñu dara moo tax it defet bi am ñun nag dootuñu bàyyi kenn ak dara candidat lañ ci tête de liste départementale ci législative yi au niveau du département de Kër Massar parce que nag élection ay baromètre la noo jóge ci baromètre défaite ñëw newaa da ngay jiite ak liste loolu musta am si Sénégal musta am dans l'histoire du Sénégal donc loolu il faut que ñu wax de dëgg moo tax nag may ñaan le ministre Amadou Hott le ministre Assome Diatta nañu am ngor nu leen président goralee tàggul kenn bu leen di nommé indi leen nommé leen waay waay waay waay wax dëgg yàlla képp ku président teg war nañ ko ñoom gunge ko accompagner même bu nekkul ñoom ñu bañ a doon ne bu dul ñoom du doon keneen loolu mooy wax ci parce que nag bu weesoo sama bopp man am na yeneen ndaw yoo xam ne ci parti bi lañ bokk am nañu fulla am nañu fayda te am nañu mbooloo ñi ngi fii ci département bi te maa ngi leen di woo sama wet pour ñu ñëw ñu liggéey ensemble pour sauver parti bi parce que parti bi dafa nekk di daanu ku mel ni Cheikh Mbacké Ndiaye gis nañ ko defoon na liste parallèle am dem na am na lu ëpp 10 000 voix kooku c'est pas du ministre du directeur amul benn fonction yoo xam ne occupé na ko mais dem na élection ndaw la am na 10 000 voix moom moo raw ay ministre ay voix ci ci département donc paradoxe yooyu kenn du ko négligé moo tax nag amoon nañ benn période kenn dégguñu amaan na ñoo xam ne dañoo yaakaar dañoo logal mais déedéet dañoo déggoon ndigal rek suñu si suñu kilifa bu ñu nee diw la rek ñu ànd ak moom mais nag duñu ay ndaw kenn duñu ay booyu kenn kenn ñoo wax loo kenn mënuñoo def loo ñun nag ñu ngi ñu ngi gën a engagé wu bokk ci la alliance pour la république ñu ngi gën a engagé wu bokk ci benn Bokk Yaakaar mais ñu ngi gën a engagé wu nekk ay ndaw mag Sall bañ a nekk ndaw benn ministre. beneen li mooy nañu delloosiwaat suñu xel suñu xel yi ñun nag dañoo noppi lool depuis élection bu mu jàllee mais nag duñ ay yaafus duñu ay yambar. kenn mënuñoo xoqatal ci réew mi lu ñu war a défendre la république dinañ ko défendre comme ni ñu ko yoon mayee mooy défendre l' état et défendre le président de la république loolu dinañ ko def leneen li mooy suñu commune di Yeumbeul du ñu nangu kenn di ko jëndee ndax am nga alal am nga xaalis wala am nga def war a def loolu ne parce que nag l'histoire m'a donné raison man Omar Sow bu may toog fii laa tàntoon di bâche di wax ne leen Amadou Hott mënut a diriger suñu liste ñu ne ma dafa contre nit mais tey daanu nañ mhm. pourtant man magu waxoon naa la ko du magu xamoon naa ko magu waxoon naa ko la bu ñu daanoo nag ñu noonu daaneel ñu waratuñoo nax président Macky Sall di ko ne ñoom ñoo nekk yëmbal di ko ne ñoom ñoo nekk département de Kër Massar di jël ay nit di leen yóbbu palais ba di leen présenter Macky Sall di leen ne ñoom ñoo yëpp ñi kii diw am na nit diw am na nit diw am na nit président ñooñu dañ lay nax muy Assome Diatta muy Amadou Hott seen compétence bu leen Macky Sall dénk muy ministre ñu ngi leen ci sant di leen gërëm ndaxte ñu ngi ciy def ay jéego yu am solo mais wàllu politique tëleen nañ ko mënuñu ko nañ fexe njabootu Macky Sall bi fi nekkoon depuis 2010 nekk fi ci terrain bi di gagné élection nañ gunge accompagner leen jël seen moyens yooyu ñuy jox seen i jabar ji jox ñeneen ak ñeneen jox ko jox ko njabootu Macky Sall bi ñu mën a dugg terrain bi jàppale nit loolu laay wax sama camarade yooyu noonu di leen ne nag ñun duñu ay booyu kenn yëmbal moo ñu ñor département de Kër Massar moo ñu ñor président Macky Sall moo ñu ñor ci loolu la ñuy nekk ci liggéey loolu la ñuy nekk moo tax nag dimbali population bi ci lañu la ñuy nekk ci la ñuy ñu politique sociale boobu la ñuy def même buñ demaatoon élection ñaanuñu ko yàlla lu xew fi xewaat fi dañuy continuer def lu ñuy def parce que si diggante yëmbal du ay élection suñu diggante yëmbal du intérêt mais dañ yëmbal daf ñoo jur yar ñu tete ñu may ñu chance ñi ñu liggéey ci état dañoo war a delloo yëmbal njukkal donc moo tax ñu ne yëmbal moo ñu ñor